Monsieur le ministre, les collaborateurs du ministre, mes chers collègues dafa bu nekk ministre aspirine wax naa ko muy ree ni ko doo faj doo dekkal mais maa ngi ko ci sant ci position boobu bi ma ko ko waxee mu ne takk nay loxoom jox ma man maay magam kon féete naa la foofu euh, ndax relation yi ñu am mu yàgg Euh, ma seq ko ak euh, sunu mbokk di sunu mag Omer Seck seq ko ak première daam seq ko ak le président de la république doom ji ma tuddee première dame deux ans la am Marème Faye Sall Lô euh, way way j'assume j'assume ci lay wax c'est important bu may wax lu leen saful ngeen noppi loolu lay wax moo tax li may wax assemblée la léegi moo tax ma ñëw bi ma ñëwee fii it euh, bu dul woon loolu du ma ñëw dama waroon a tukki tey mais jàpp naa ne bu dee da nga fiy jaar yow te yor programme yoo xam ne programme la yoo xam ne depuis état bi jël ko muy PUDC muy Promoville muy Puma muy programme yoo xam ne jariñ na askan wi dinaa saluer programme yooyu moo tax ma la ci féliciter di la encourager di sàkku it liggéey boobu xam ne président de la république de la koo jox mu nekk liggéey bu rëy yàlla jàppale la ci sàmm la ci bal yaakaar jooju mu am yaakaar ne yow yaa ko war a mën a def nga man koo def beneen bi mooy. honorable Farba Ngom. honorable Mamadou Ngom voilà. waaw merci euh, li am solo daal euh, ci sa ministère bi li tax ma ñëw ci soutenir la ci programme boobu moo tax leneen li ci des nag yeneen i programme yi nga xam ne war naa cee wax xëy na am na ñu ko war a laaj ñooñu ko war a laaj buñ ko laajee danaa ci tontu. waaye li ma indi woon daal mooy yow ma encouragé la pour sa yar sa teggin sa comportement liggéey bu rafet bi ngay liggéeyal président de la république fuñ foo mën a jaar moo taxoon ma ñëw fii kon maa ngi lay sant di la souhaiter bon vent souhaiter la it nga réussir ndax boo réussir lu bëree bëri ci askan wi li ñuy xaar ci président de la république surtout ci zone rural bi da ko régler li ci des nag maa ngi si ku ko bëgg nag ma ko laaj. Mamadou Ngom s'il vous plaît laissez-nous continuer nos travaux s'il vous plaît oui s'il vous plaît honorable laissez-nous continuer nos travaux honorable Fatma Diop vous avez la parole. Femme honorable Femme Diop allez-y. S'il vous plaît, chef.